waaw maa ngi lay fay suñu Fall maa ngi lay fay bu baax a baax mhm. képp koo xamante ne yaa ngi dégg la dégg mhm. di ñaan jàmm yàlla def ko Sénégal la. Mhm. képp koo xam ne si côté la dégg na dundee tàngoor wi. waaw tàngoor moom. moom tàng tàng trop moom. waaw. est-ce que yaa ngi dem plage. waaw géej moom ma xool instant bii nii bu fay dem ay 5 euh, heures la ñuy dem bu tàngee yaram rek daw bi ñu fekk daal. Hmm. noo dundee confinement bi. noo ko dundee. ah xanaa toog sama kër rek ah. ak distance bi ñu am man ak yow. <laughs> ah mais na ci eh, distance bi baax na si. baax bi toll. ah distance bi baax na si. xanaa moytu ci rek. Hmm. noo dundee feebar bi Covid 19 di mbas moo xam si ni wax dëgg yàlla gis nga ni mu def ci réewum Sénégal mais gis nga ni mu def ci àdduna bi ak li mu yàq noo ko dundee. waaw ni ñu ko dundee comme lu ñu digal rek. Mm-hmm. ñu doxalee noonu. Mm-hmm. parce nekk na feebar boo xamante ne tey euh, bu la xasee ba dal rek mm-hmm. bu ñu jublu ci yow carrément day jël suñu matuwaay matuwaay moom mooy di ressembler

ñoo ngi koy nuyu au passage ñu ngi koy nuyu booy ñaa ñoo ngi koy nuy bu baax a baax da nga bëree ak moom am ci ndam lu rëy am ci ndam lu set lu wicc noo dundee woon keroog victoire boobu. waaw xam nga tey sama diggante Boy Niang man làmb jooju dafa nekk loo xamante ne mënu ci wax lu sori. parce que ma daan ma ñàkk daan yëpp du ma daal. Mhm. au contraire dafay setal sama yoon rek. Mhm. nekk na làmb yoo xamante ne bëri mhm. mhm. moo gën a am importance. Mhm, guddi yu ñu nii quoi. nekk sa kanam moo gën a am importance lan moo nekk sa kanam ci yoonu làmb. kan moo nekk sa kanam ci yoonu làmb. roi des loolu moo hmm. mel ni sax maa rek moo teel naa parce que boo xoolee ténor yëpp. koo hmm. hmm. ni yaa pare nga pour pour bëre ak bërewaat ki nga xam si moom mooy euh, Modou hmm. ndax instant bi moom moo fi roi des arènes. waaw ndax mu yor ñëpp ko soxla. ñëpp ko soxla. waaw kon donc moom lañ soxla.